mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir metti point com tey nag ñu ñëw fi nga xam ni euh, moom mooy Cambérène euh, fekk si famille yu ki nga xam ni euh, moom mooy Cheikh Wade Cheikh Wade nag moom lañ daal di faat bakkanam fële nga xam ni moom mooy Parcelles ci manifestation yi nga xam ni amoon na semaine bi passé ñëw nañ nag fi nga xam ni moom mooy Cambérène daal di seet si ñi li nga xam ne ñoom ñooy seen waa kër dañuy bàyyi ki nga xam ni moom frère mu daal di njëkk waxtaan ak ñun asalaamaaleykum wa limam ma metti maa leen di nuyu len ziar man Abdoulaye Wade grand frère Cheikh wad moom mi nga xam ni moom la takk deri boom fi Parcelles Assainies lundi passé. bon xamuñu won day dem parce que bo gisee cambre gi fi ngeen ñew ni ak ak ak vendeur nu mu kon lool sa xel mënu la jox loolu. mënuñ comprendre parce que mom déjà tailleur la xam nga atelier fi rané ci kër gi ci négam peut-être tam mënoon na dem jindi ay jindi ay matériel côté marché vendeur jaaré nonu gis manifestation yi taxaw tamit xam nga ban dogal la fekkoon si mais loolu yëpp dara wóoraguñu si mais daal noonu la nii lañ ko gisee depuis mardi lañ ko yëg comme décès bi lundi la mardi bañ ñu woowee ñuy am affaire bu ñu metti sax affaire bu ñu tiis bon lundi bi ñun ñu ngi doon seetaan vidéo meurtre bi di xool di xool tiir yi di xool gars yi ni ñuy dawee di song commissariat Parcelles Assainies mais dañu doon ignorer vidéo yi di image xamuñu woon parce que ndekete suñu deret lañ laal xamuñu woon mu bett ñu bett ñu bari si sénégalais am di jàmm yi mbokk yi ñëpp waa waa dig ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo kii ñooñu woo ñooñu woo ñëw pour ñëw identifier koor ba xam pour ñu mën a confirmer ba xam kooram la la suite lañ dem ñu ni dañ ko xam fekk ñoon ay kii si moom am na yoo xam fekk ñu ko téléphone dañ ko doon woo téléphone fii sax di dugg boîte vocale mënuñu ko jot fekk li tax remarqué wuñu muy dem di ko ñëw couvre bu jotee vingt mu fanaan foofu cinq heures six heures buy xaw a leer nii balaa muy xaw a leer na mu duggaat ci kër gi non peut-être lu poussé sénégalais yëpp ak jeune jeunes yu bari ñu wàcc ci mbedd bi ñëpp mooy luñ bëgg daal ku ne sa ñoom seen droit lañ bëgg xam nga ñu teg ak peut-être yu bari am na yoo xam sax man du ma si dugg parce que man moom déjà am na yoo xam boo fa boo fa duggee dañ lay yóbbu côté politique quoi te lii duñ ci boole politique parce que lu sérieux waaw peut être injustice bu bu mu déggoon moroom mi di ko woote tamit mu gis si boppam dem di ko xeex ak démocratie Sénégal lu ko saxal peut être loolu moo tax mu sacrifier pour te seize millions de personnes waaw mu sacrifier pour lital leen loolu moom mu daanu si xare bi kon loolu moom presque guerre la boo xam ne guerre la bu mu demoon boo xam ne moom dafa xare daanu mais lu ci metti mooy guerre boo xam ne yow ku la rey du sa adversaire sa mën nañ ni sa sa frère la sa voisin la sa lépp la muy sénégalais comme yow surtout ñu né commandant police plus précisément duma jaar fer si digg bi jaar ñepp né nañ commandant police kon c'est est commandant waru ci recc waaw mo tiire ba réel ñepp gis ko kon c'est est à dire lañ mëna a joxañ baaraamu tuuma bi waaw lool mom xam nga ku naqar bi dal rek di nga xol mu gëna num gëna léré mais déjà ñun suñu koor mu ngi ni suñu ban ni may wax ak yow ni dañ ko wara enterrer 15h ni buñ ko enterrer ba nga xamni ne génn suñu loxo ñun ñu dooro firi commencé xool procédure yi ñuy jaar ba nga xam moom fee mu tëdd dina fa tàlli waaw ñun duñu xool suñu intérêt ñun personnel moom intérêt lu mu doon xeex moom lañ koy xeexal ba jël si ndam ba mu am si ndam ndam bi nag du question ñun xaalis la jox xaalis bi dem si moom non non am justice justice comme comme dañ ko tooñ ku ko tooñ faaw mu feeñ ñu ràññee ko ba moom fu mu tëdd mu mën a tàlli waaw loolu rek lañ soxla nguur gi moom luñu lu ñu bett la parce que ñoom mën na la jóge te ñoom seen amul seen benn ndaw bu fi teg tànkam ñëw jaalañ surtout police bi nga xam ñoom ñoo ko def amul ñenn seen supérieur yi nga xam ñëw nañ ci jaalañ waaw mais am na opposant am na ñu fi ñëw nag mais côté Pastef la quoi ñëw nañ nemmeeku nañ ñu xam dalal nañ ñu aussi tamit xam nga jàppale ñu suñuy côté si côté di di dalal suñuy xel xam rek am loo xam dafa metti faaw ay nit am nga am assistance ñoo xam dañuy ñëw dimbalee di waxtaan yow psychologiquement pour yow nga mën a apaiser nga man maa ngi nii psychologique boobu moo ma cee sama xol lu bari feesatul si peut-être dese naa ay jooy mais xam nga dinaa mën a tenir quoi. néegam bee mooy mooy atelier am fa ñu ko fay fay lu ñu ko fay tamit si gaal si kër gi la koy def comme man frère am tamit man maa ngi liggéey tax na Sénégal fii boo duggee benn kër benn benn benn benn emploi nga fekk kenn koy liggéey wala sax mën nga ko bañ gis maa ngi liggéey di tàq di faraatu lu may faraatu bu ma ñëwee ñu bokkoo fii su ma amul parfois mu def boo jëndee suukar mu jënd warga kon c'est-à-dire que na cest amuñu fenn fuñu ko mëna rembourser waaw soutien de famille ko xam tamit goor la moy moy moy chat bu goor comme sama yaay ñetti goor la am sunu sunu baye mag liggéeyam demeewul doon ñoo fi nek presque ay njabootu jigen ñëpp ay jigéen lañ mu metti jigen ñi mo ra kenn mënu leen té affaire daf daf daf leen sa dépasser ñom comme man ma fi goor man ma xaw ma xaw apaiser affaire yi xam nga mën wax ak nit ñi dank ba ñëpp dal lepp jam jam tegg wat aw dèjà dañu sant yalla rek parce que yalla moo ñu ko joxoon moko jëlat kàddu yooyu lañuy lañuy lañuy la wax tout le temps aussi tamit xale yooyu tamit lu ngi leen di ñaax rek mooy comme seex mi dafa xeex moom ba daanu xeexal xeexal man mi nga xam ne dama tëddoon fii di ko seeraan si ci internet xeexal plus de 16 millions de personnes pour seen démocratie ñoom ñu rendre ko hommage si enterrement bi peut-être mën na trop tard nag parce que léegi ñu denc ko nii mais loolu laa doon ñaax parce que ñoom ñëpp la xeexal te mënoon na dal tamit ku ne yàlla peut-être moo ko tudd si kër gi xalaatuma woon lii yëpp kenn imagine woon tey di wax ay journaliste di ma woo ma di ma sol yàlla mooy tracé ay mbiram nag ñu nangoo ko noonu lu ma wax état Sénégal mooy du ma wax wax jàppale damay dégg à chaque fois boo kiiwee rek ñu naan na état bi jàppale famille bi jàppale kii loolu moom c'est forcé waaw loolu moom c'est forcé mais affaire de deuxième la lu priorité mooy instant yi que justice soit ñun famille bi loolu lañ bëgg te man mi xam maay ndaw xam naa ay mag ñoo xam ne ñoo ñoo ne sama ginnaaw ñi xam si famille bi lañ nekk ñoo ne sama ginnaaw mais dañ ma jiital pour ma wax mais man xooluma sama intérêt personnel xooluma alalu état bi ndàmpaay moom loolu moom se forcé moom mais mënuñu jox ay milliards milliards ba mu fees suñu bët parce que ñun ay góor lañ te aussi tamit doylu nañ waaw si lu ñu fekk si lañ ñuy bàyyi ñeewuñu kenn lijjanti wuñ jëfu kenn waaw que justice soit faite rek après lu siy tegu tegu si ñu xam ne noonu noonu noonu la ko yàlla dogalee